nan lañuy tànnee jabar kon ci góor gi la gën a jëm islaam diine la boo xam ni dafa matale képp koo xam ni day labat islaam tegal na la ay principe ak i yoo xam ni danga nga ciy jubee pour mën cee tànnee soxna soo xam ni di ngeen dëppoo mën a déggoo ndax ngeen mën a former famille boo xamante ne bu baax la ngir am ci ay doom yu góor ak yu jigéen ñoom ñépp ñu nekk ñu gëm yàlla loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy digle kuy takk jabar daf ko ne rek fasfar bi zaati diin taribat yadak yow miy bëgg a takk jabar day am na ñoo xam ni bu ñuy takk jabar dañu koy takk ngir alal jamu am fas yéene ko bokk ak moom kon ku takk jigéen ngir jëriñu ci alalam takk nga ko ngir alalam kon lu la ca fekk tamit santee ko yàlla am na ñoo xam ne dañuy takk jigéen ngir askanam famille bi mu bokk dafa riche loola it moom nga cay amee am na ñoo xam ni taar la ñuy takkee jigéen ki takkee jigéen ngir taarit nag lu ko ca fekk na muñ waaye daal yonent bi ne yow jullit bi nga xam ne sunna ngay dund yow mi bëgg jabar ju baax kon fag far bi diin tànnal jigéen ju am diine lu ko may rek boo ko deful taribat yadak jigéen boo takk te amul diine rek da nga ca amee naqar danga nga ca amee jafe-jafe mbokk yi kuy takk jabar bu la ci bànneex dugal bu la ci taar dugal bu la ci alal dugal bu la ci doom dugal waaye takkeel soxna si ragal yàlla yow góor gi balaa ngay takk jabar nag tëralal sa projet atteindre say objectif ndax kat am na ñu bari li leen di échec ci ni ñuy takkee jabar am na ñoo xam ne ni ñu déggee takk jabar dañ ci juum ni ñu koy imaginer dañ ci juum am na ñoo xam ni dañoo jàpp ni takk jabar bànneex rek la yaram bi sëy lune de miel noos loolu rek leen dugal ci jabar ñaareelu kuréel bi ñoom dañoo jàpp ni takk jabar daal du dara lu dul pour am ay doom ak bég ci doom yi boo amul doom rek mooy sa sëy échec am na ñoo xam ni ñoom dañoo jàpp ni takk jabar daal pour yilif ko la di ko sant muy def di ko tere muy bàyyi góor ñooñu mooy góor ñiy jaamaloo jigéen di leen jaay kàddu kilifteef maa yilif maa nangam waaye am na ñoo xam ni la tax ñu takk jabar du dara lu dul rekk bànneex bi génn ci ñoom ak li ñu bëgg am ci jigéen ja jë ñu olof nee na ñoo bëy ñooyam ñoom daal jigéen la bëgg waaye du soxna la ñu bëgg am na ñoo xam ne ñoom dañoo yëg ni takk jabar daal aada la fekk naa samay bàyyi di koy def samay maam di ko def famille bi di koy def dama ko def comme ñëpp ñu néew ngay fekk nag ñu xam ni sëy responsabilité la bu mag dimbalante la bu war a continuer waaye sacrifice la bu mag ngir fonder ab famille defar ab kër goo xam ni ajjana lañu koy fondement tabax ko waaye ñu ngay nopp fa àdduna lañu koy fondement tabax ko waaye ñu ngay noppaloo ji ajjana moo tax borom bi ne yaa ayyuhan naasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم kon borom bi ne bind naa leen ci góor ak jigéen def ci seen biir ay peuple ak i famille ngir ngeen xamante waaye loolu man itteelu ma xamante bi bëriwaay bi bëri askan bi am am bi yàlla ne li ko itteel inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki ragal yàlla kon yow góor yow mbokk jullit bul sàgganee diine ndax diine kat mooy njalbeenu melokaanu jigéenu jullit mooy njalbeenu melokaanu jabar ju baax kon jabar ji na nekk boroom diine borom bi ne wala amatum muminatun xayrun min mushrika walaw ajabakum takkoon jaam bu jigéen bu ñuul kukk tilim salte te gëm yàlla nee na moo gën nga takk jigéen ju taaru lool te amul diine jigéen ji taaru lool te bokk ci ñoo xamante du ñu ci diine yàlla nee na nga takk ki am diine te ñaaw moo gën beneen bi xam nga jigéen bu amee diine day bokk ci ñi teey fota borom bi ne wa tayyibaatu li tayyibiin wa tayyibuuna li tayyibaat nee na jigéen ñu baax ñi daal pour góor ñu baax ñi la góor ñu baax ñi pour jigéen ñu baax ñi la beneen bi borom bi subhanahu wa taala ne فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله borom bi ne jigéen ñu baax ñi dëgg mooy ñiy toroxlul yàlla mooy ñiy sàmm seen pays ba duñu njaaloo ndax yàllaa leen sant ñu bañ a njaaloo kon yow mi takk jabar daal déglul conseil yi la yonent bi jox conseil yooyu weesuwul fazfar bi zaati diin jigéen ju am diine lu ko mooy rek taribat yadaak xadis boobu muttafaqun ali kon yonent bi sallallahu alayhi moo ñu digal digal na yow mi bëgg a takk jabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tànnal borom diine ndax bu jabar ji ñëwee yore jikko ju baax soo ci amee ay doom ñu nekk doom yu baax soo leen yare ci diine ñu nekk ay jigéenu diine gis nga léeg-léeg góor takk ku mu bokkalul diine mais jafe-jafe gis naa ko ci benn góor mu takk benn jigéen chrétienne waaye fu ñu mujj mooy doom yu góor yi ñooy nekk jullit yu jigéen ñi nekk chrétienne wal iyaazu billah yal nañ ci yàlla musal ndax loolu responsabilité bàyyi la kon booy takk jabar takkal jigéen ju am diine ndax boo ko jubbantee mu jub waaw dafa mel ni dañuy laaj ab laaj ne lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jiital diine ci kaw alal aw ak askan aku taar xam nga lu tax diine yi diine moo gën alal moo gën askan moo gën taar ndax alal askan taar mbiru àdduna la fii la yem waaye jigéen ji baax yonent bi da koo tagg nee na adduniya mataa wa xayru mataa'iha almar'atu saaliha nee aduna day lépp marchandise la marchandise bi gën nag ne mooy jigéen ju baax kon jullit day fexe takk soxna su baax kon jigéen ju baax mooy kan bi ñu ko laajee yoon bi sala sallam dafa wax ni wa zawjatun faaliha tuiinuka ala amri dunyaaka wa diinik xayri maktana nnas nee na takk jabar ju ragal yàlla ju baax mu dimbale la ci sa mbiru àdduna ak sa mbiru diine moo gën lu nit di ut ci kaw suuf xadis boobu tabaraan yi moom moo ko solo bokk na ci ñeenti ponk yi nga xam ni mooy taaru àdduna jigéen ju baax teraangay àdduna ñeenti mbir la bi ci jiitu mooy almaratu saaliha jabar ju baax boo xam ni boo gisee mu yiim la soo tukkee mu xaar la soo fi nekkul mu sàmmal la say waaye bokk na ci texe di ci àdduna nag am jabar joo xam ni soo ko gisee doo kontaan soo ko santee du def soo ko teree du bàyyi yëkkati làmmiñam jëm sa kaw boo fi nekkul du sàmm boppam loolu baaxul kon maa ngi leen di wax ni ndeke taaru jigéen nekkul ci li muy diwoo nekkul ci limuy sol waaye taaru jigéen mi ngi ci limuy muy comporté yoo selon diine islam kon nag bokk na ci lay dimbale yow góor gi bala ngay tànn jabar yow it na nga baax nag ndax soo bëggee jigéen ju mel ni xafsa il faut nga mel ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo bëggee jigéen ju mel ni fatima il faut nga mel ni ali kon da ngay baax yow góor gi ba pare pour sa jabar mën a baax waaye rek na jigéen ji baax man lu ma neex mel déedéet kon booy takk takkal jabar buy dund sunna waaye yow jigéen bi booy sëy sëy la góor guy dund sunna bu dee alal dafa ko toppee day jeex su dee taar day jeex lu mu mënti doon day jeex waaye diine moo fiy des ba faw kon mbokk yi diine moom la ñuy takkee soxna diine moom lañuy ñuy labatee soxna beneen bi bokk na ci utal jigéen bu rafet jikko jigéen même bu taaroo te jikkoom rafetul loolu baaxul kon jikko ju rafet mooy defar taar jikko ju rafet mooy tax boroom civilisé waaye du feneen fi ñu ko teg bokk na ci jabar ju baaxit nag day néew can jigéen ju baax du laaj lu bari donte laaj lu bari dagan na ndax alquran nee wa atu ihdahunna qintaara qintaar kenn xamut nu mu toll waaye nag bi mu la waxee loolu wax na la ni li gën day mooy bañ a laaj lu bari loolu la yonent bi wax nee na xayru nikah ay saru nee na sëyi bi ci gën mooy bi gën a yomb can nee na inna min yumni al taysiru xitbatiha wa taysiru sadaqiha wa taysiru ruhmiha nee na bokk na ci barkeb jigéen labatam yomb canam yomb biiram ubbeeku muy am doom kon mbokk yi bokk na ci booy takk jabar na xam yi waaye it nag nga yëg ni takk jabar bokk na ci objectif yi am jabar bu lay bégloo jabar boo xamante ni teraanga biñ koy defal dana ko xam jabar boo xamante ni du fakk jëf jabar boo xam ni du ñaaw jikkoo waaye mu nekk jabar joo xam ni pare na pour sëy pare na pour nangu ndigal waaye pare na pour bàyyi ay tere bokk na ci na nekk jigéen boo xam ni nay njortam di rafet bokk na ci mu nekk jigéen joo xam ni du doon bañkat bokk na ci mu nekk jigéen joo xam ni du doon geddkat kon na nekk jigéen bu lewet na nekk jigéen bu nooy na nekk jigéen boo xam ni bu baax la na nekk buy jaamu boroomam waaye it nag na nekk jigéen joo xam ni su tooñee mën a baalu ndax jigéen ju du nekk soxna kon mbokk yi ab góor jullit bokk na ci suy tànn jabar mu xool kan lay takk ndax koo xamante ni yéenay bokk su société war bokk dund ah boo koy jël xoolal ki ngay jël kan lay doon والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا يلا